non soxlawul preuve loolu c' est c' est dogmatique. Ah, si la preuve Ousmane Sonko avec. Euh, c' est dogmatique ses anciens non nekkuñu ennemi. entre guillemets. non y' a pas d' ennemi entre guillemets. les gens sont ennemis ou pas je dis ça ennemi politique. Aliou Aliou Aliou Aliou Aliou bëggatuma laa dégg. su ma <laughs> pouvoir. <laughs> Mhm. ñu dàq ko jël mandat te fas yéene wul bàyyi politique. mais mhm. automatiquement elle se retrouve dans l' opposition. opposition nekk dans un cadre de lutte. boo xamante ne ku ci ne am na loola ci intéressé wala loo xamante ne yow bu dee Sénégal euh, ñor na la. Mm-hmm. gi war nga ci gis sa bopp ne xeex la parce que la plateforme. kon des forces vive de la nation qu'on en train de mettre sur en, en place ce n'est d'ailleurs même pas que nekkul kese ay ay ay am na ay société civile am na des mouvements des activistes ak d'autres mouvements citoyens wala des des des kii de droits de l'homme c'est cinquante huit euh, partis ak euh, ñeneen ñi nga xam wu nekk ay personnalités indépendantes muy soixante quatre Mhm. plus 32 demandes. Ouais. en instance de d'approbation. <coughs> donc ñooñu noonu nit war na mën a jàpp ne que c'est suffisamment représentatif représentatif d'une certaine opinion au Sénégal ci li ma jàpp. au regard d'abord multiplicité com multiplicité composante yi ak nombre bi ak envergure personnalité yi ci nekk ñu ne lépp luy euh, troisième candidature dañ koy xeex. la liquidation des adversaires politiques par l'instrumentalisation de la justice dañ koy xeex la libération des otages politiques dañ dañuy dañuy xeex pour mu am la défense de libertés publique dañuy xeex pour mu am un processus électoral transparent boo xamante ne mooy gage de paix civile au Sénégal dañuy xeex pour mu am mais loolu même s'il y a des clivages dans l'opposition c'est des questions qui peuvent les fédérer à un moment donné et chaque fois que il des conquêtes démocratique au Sénégal, c'est parce que l'opposition s'est retrouvée dans un cadre, soit l'opposition politique ou l'opposition plus la société civile loolu moo waral 92 ñu amoon un code consensuel lool moo te waroon pour la surveillance des élections en 2000 ñu amoon un ministre de l'intérieur neutre et cetera et cetera yooyu du taxaw te bés bu ci opposition bi ku ci seetaan bàyyi ñeneen ñu koy xeex c'est peut un à un qu'on va effriter le les l'opposition ba pare imposer li nga xam te ne ñoom ñëpp noo ko nar de donc ces regroupements là c'est c'est c'est important. est-ce que nekkuñu derrière derrière Pastef di li maanaam <coughs> être ku nekk question boobu demee après yow. damay damay tëj sa micro. man fi Aliou Sow ah, nekkoon ko bëgg a sa ah, waaw ñu ngi ñëw bàyyi bàyyi Issa continuer Daniel après. ñu doog a ñëw li ma ko bëgg laaj mooy est-ce que nekkuñu di usante maanaam Pastef d'une part muy muy utiliser. Euh, une certaine opposition ñoo xam ne xëy na ñu ngi ci kujjeeg politique gi peut-être yàgg nañ ci wala am nañ yenn kii tax Pastef nu ngoo ànd ak ñoom pour combler li nga xam ne xëy na moom mënu fa àgg parce que yaa ngi wax sànq ci ay limu député beneen bi mooy euh, suñ jëlee contraire bi est-ce que aussi opposition bi yéen waa PASTEF xalaatu leen que ni quand même des fois dinañ en sachant que ni bon il n'est pas clair que ni dina dem présidentiel mën nañ récupérer les voix de PASTEF bu fekkante ne amuñu une autre bu nga xam ne mi ngi euh, commencer euh, à sortir de l'eau suñu leader c'est clair que day dem présidentiel pour suñu bopp c'est clair que day dem day dem day dem kii présidentielle 2024 maintenant ànd nag Issa booy ànd ak nit te amul lenn lu mu la yokk moom bu yóbboo nga bàyyi ko quand opposition bu retrouvé aussi ku ku ne jàpp nga ne ku am na loola keneen ki mën a yokk loolu bu am àndul jar pour man jarul ànd di am mhm. bu ñu wóoroon ne que on va se retrouver dans un cadre bu ñu dul yokk dara duñ fa dem kon dañuy continuer avec notre formation politique seule <coughs> mais dañuy jàpp ne que les grands ensembles et les regroupements ak histoire politique u Sénégal ñaar alternance majeure yi ñu fi am gis nga ne benn parti moo dem euh, alternance am 2000 non c'était une coalition. moo tax amul njëriñ. en 2012 gis nga ne benn parti moo amoon pour pour conquérir le pouvoir non c'était une coalition. donc instant yi nii ci réalité politique u Sénégal benn parti mënul xëy chemin moom kese na du ànd ak kenn ba gañe dara. lu lu significatif. d' accord d' dafa wax tudd euh, maître ngañ Demba Touré. Hmm. et kàddu yi nga xamante ni euh, waxloo nañ ko ko parce que nag c' une vidéo bu gudd ñu jël une partie dagg ko partagé ko pour dire que Ngagne Demba toure def ne ci projet PASTEF bokk na ci bis bu Ousmane Sonko nekkee président de la République lépp lu nga xamante ni dafa ñeel wàllum tarixa dañ koy supprimer fii au Sénégal on a vu maître Ngagne Demba en personne démentir ça. pour dire que waxeewu ko noonu waxu souveranté économique la wax xëy na yow mi nga xamante ne bokk nga ci ñi tënkoon euh, projet Pastef ce serait important nga di dikkaat ci ci kàddu yooyu. non d'abord li nga wax ni li nga wax ni lu garaaw la. Hmm? parce que baatu bés bu président nekkee Sonko lépp luy taraxe daf koy dindi. Hmm, hmm. man ci yow laa ko déggee. non on a dit que maître Ngagne Demba loolu la wax. oui il est sorti pour démentir. donc comme yaa ngi fi tey te bokkoon nga ci ñi tënk projet boobu nga leeral. non Ngagne waxul loolu. Ngagne waxul loolu. ngañ même lu ñu dagg loolu amul ci waxam muy benn bi ci tegu mooy bu ñu commencé naan wax ju gudd la rek ñu dagg ci tuuti rek je pense que mën nañu sax bañ a bañ a tardé parce que président Sonko 20 euh, 4 décembre 4 janvier 2020 ci meeting bu ñu teniroon au terrain Sacré-Cœur ci VDN bi wax na ne xeetu diabolisation bu ne diaboliser nañ ma ko. Mm-hmm. wax nañu ne sax bu président Sonko ñëwee magal dootul amati. kii dootul amati gàmmu dootul amati ñu dem dagg loolu dem won ko ay kilifa ne leen gis ngeen nee na bu ñëwee magal dootul amati kilifa kii gàmmu dootul amati mm-hmm. donc adversaire politique nag boo xamante ne wax na la salafiste wax na la rebelle wax na la lépp lu mu jàpp ne lu la mën a feewale yow ak askan wi la jaar na fa amul lenn lu ci dox nit ñi lay gën a bëgg ñu ngi lay gën a bàyyi xel ñu ngi lay gën a défendre ñu ngi gën a jël alal di la ko jox loolu rek moo ko dese. kon manipulation la loolu vidéo boobu ñu doon véhiculer qu'est-ce qu'il a voulu leeral manipulation la on peut parce que gis nañ ñu bëri dañuy utiliser même parole yooyu fu ñu toog dañ koy wax mais man jël vidéo boobu di ko partager pour xëy na mettre Ousmane Sonko en mal ak ñi nga xamante ni ñoo di tarixa yi nekk au Sénégal c'est peine parce que ku ne gis nga cër guñ ko may ci kër diine yi mhm. bi ci tegu man tey jii ni rek bi sama affiche bi génne envoyé nañ ma benn capture d'écran ci biir groupe nit di wax man wahabiste la que tasawuf rek laa bañ di ko xeex fu ne monsieur monsieur Faye mhm. wax ñu qu'est-ce qu'il a voulu dire leeralal ñu ko comme sa nit la te yéen xamante ngeen ci seen biir euh, voilà c'est tout lan la wax lan la wax moom lan la bëggoon wax exactement tey moom bu fi nekkoon lan lay wax lan lay tontu parce loolu vous da ngay bàyyi ba mu ñëw. ñu waxal ko baax na kon pare naa ci. mais lii la bëggoon wax te dugg ci xelam. man déglu naa ko mu ne wàllum souveraineté économique la doon wax. i na parlait même pas de la religion. bu ñu bu ñu bu ñu amoon temps tey jii nii. dañuy tegaat. dañuy tegaat kii bi extrait bi. extrait parce teg extrait bi. doo teg extrait bi. non mais garaaw bi booy booy teg da ngay teg lépp. bi posé question. waa ji démentir na ñoom ñaar wax nañ ci je pense que. mën nañ jàll ba waa ji ñu am ko ñu am ko ci plateau bi. aloor euh, Mame Khady. waaw justement j'espère que euh, parce que feneen foofu waaw kay mooy euh, lu jëm ci wàllug actualité gis nañ ne arrestation mu ngi bëri jëmee ci seen boor lu ci mel ni ñenn ñuy woowee les lieutenants de Pastef euh, sànq rek joxe nga exemple ku ci mel ni euh, nu mu tuddati El Malick ba ñu am problème mu et tout ça d'abord naka naka yow nga ko jàngatee arrestation yu bëri yi ak it tamit bëgg naa am aussi sa avis ci sortie yu procureur ak lim ci wax yépp ak force spéciale maintenant commando bëgg naa si am sa avis. xam nga euh, si Sénégal moom depuis deux mille depuis depuis deux mille dix huit <coughs> particulièrement dañu nekk di infantil infantile infantiliser askan maanaam dañu leen di dañu leen di jàppee ay xele yoo xamante ne war nañ mën a ubbi seen bopp dugal ci dugal dugal dugal dugal ci lu leen neex en fait tey on a fait la situation def nañ situation ñaata nit lañu am ci biir kaso yi tey à midi mm-hmm. on est deux cent cinquante plus de deux cent cinquante même waxuma la nag ñi nga xamante ne libéré nañ leen sous condition de euh, comment contrôle judiciaire ñii ñu libéré leen avec des bracelets électroniques ak ñi nga xamante ne jàpp nañ leen torture leen gaañ leen ba pare bàyyi leen ñu dem on benn instant on était presque di waa ji jege ay six six cent personnes dans les prisons entre les détentions fii les mandats de dépôt les gardes à vue ak lu ne Sénégal fii toog nañu fi benn procureur génn nee ñu jàpp nañu rebelle boo xam ne dañ ko fekk muy jënd yàpp xar wala muy jënd xar. muy jënd xar. pro rebelle boo ko jàppee muy jënd xar wala boo ngay dox ba fekk ko muy waxaale xar bu yóbboo nga ñibbi. <laughs> xam nga ne kooku dafay dem méchoui ji lekk ba suur bàyyi utul lenn lu muy loree doomu aadama. mais mu nga nekk rebelle ba pare soxla méchoui aussi. ah non am envie lekk bi un rebelle un la veille la veille d'une manifestation il est la capitale. rebelle boo xamante ni boobu ba léegi dañuy wax ne moom lañ jàpp ñeneen ils sont dans la nature. peut-être que c'est pas ça, vrai. mais loolu mais évidemment que c'est pas vrai. waaw mun na c'est nekk di naan ay force spéciale boo ci génnee ne commando boo ci génnee ne rebelle di stigmatiser une région entière cest à doomu Casamance yi dañu am droit am ambition nekk président de la République fii ci Sénégal parce que Sénégal ñun ñoo fi wax ne. Mhm. benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar. ni Diomaye amee droit di am des des ambitions ci biir dëkk bi nekk doomu njaga ñëw noonu la doomu Tengoor yi waree am droit nekk am les mêmes ambitions de même ko ku nekk Bawol wala ku nekk Dakar. pourquoi parce qu'un Casamance à une époque donnée isewu na à certains niveaux rek bu gagné ci foo xamante ne mos na fa voté ñu gagné ko ñu ne salafiste la. en 2017 bii président de am plus forest dañ ko gagné woon y compris dans son propre bureau de vote en Casamance. continuer di liggéey sur le terrain ba ñëpp a déggal ko bàyyi ko nopp gëm ko moo tax mu gagné en 2019 et en 2022 kon pourquoi subitement mu commencé gagné rek ñu naan rebelle la te bu bu doon perdre kenn waxul rebelle la. mais yooyu ay parole politique la ko ay échange la rek. c'est normal non non non non. Enfin, c'est mal normal. non c'est malsain. enfin parce que loolu ma indi problème yëpp yi ngay gis moo tax tey ñuy jël procureur de la république mu génn jàkkaarloog sénégalais yi di divulguer. un dossier médical di jàpp ay ay ay médecins yoo xamante ne ñoom ñoo leen nommé médecin chef de centre hospitalier ne leen da ngeen di exercer illégalement la médecine di leen toppee parce que nangu leen divulguer le secret médical que vous êtes vous êtes en train l'action de la justice lépp li nga gis mu am par la suite looloo ko waral c'est-à-dire c'est ay commando yeeg scaba lu ñu ko waxal yëpp moom la moom moom moom fala mooy jaar-jaaram dara du ci dëgg képp koo xamante ne taxal nañu la ci lu mel noonu pour faire en raccourci par-ci par la dara du ci dëgg et ils ont mis en relation dans une affaire ay nit ñoo xamante ne ils se connaissent pas ils n'ont jamais interagi dans le cadre du parti juste parce que bëgg nga teg ci Sénégalais yi lu leen di xuuxal pour ñu gën a ragal Pastef te ñuy ay sénégalais comme dañuy chargé dossier yi nga bëgg a wax est-ce que réussir nañ ko est-ce que réussir uñ ko non je pense que ça a ça a ba tey amuñu tànk gannaaw bu ko dalee di wax ba tey demaguñ woon ci bu ñuy wax ay affaire rebelle di wax force spéciale en juin est-ce que tere na ñu ñu ñu ñu mettre leen en ballottage à l'Assemblée nationale non terewu ko donc la progression du parti et de l'idéologie ci biir bopp sénégalais yi avancé bu mag lañ ci am te violence yi ñuy def yii yëpp contre-productif kese la mën a nekk mais dafa commencé nag egg niveau boo xamante ne tey sénégalais yi mos fan lañ mos a xalaatee ne ay sénégalais dinañ jàkkaarloo ak ay sénégalais dans le cadre de manifesta manifestation di di xeex ba ay bakkan rot ci. Youssouf Faye, quest que vous reprochez au PASTEF? Je reproche rien à PASTEF. Est-ce que vous pensez que le PASTEF est un parti nickel chrome? C'est quoi nickel chrome? Non, moi, tout va bien. que amuñu dara la ñu mën a reprocher Pastef yow. mais mais sa xalaat quoi. non man Pastef mënuma ko xoolee le regard bi nga koy xoolee parce que yow extérieur nga nekk man ak intérieur. Mhm. man xam lan laa gis fan lañ déparé fan lañ bëgg a egg fan lañ ci toll. est-ce que fu ñu déparé par rapport temps bi suñu progression bi normal na sànq Sané a dit saa ça a été fulgurant alhamdulilah rabil alamin est-ce que ñi ñu fekkoon ñu nekk suñu kanam ëpp ñu vécu politique ëpp ñu expérience ëpp ñu alal ëpp ñu tur est-ce que tey ñooñu ëpp dayoo ci biir politique bi no kon sant yàlla alhamdulilah est-ce que tey on est un candidat sérieux à la présidentielle de 2024 pour ne pas dire favori jàpp naa ne liggéey nañu liggéey gu tax suñu candidature dara gënu ko sérieux ci candidature yi di dem 2024 aujourd'hui kon alhamdulilah rabbil alamin d'accord tout n'est pas parfait parce que ñu ciy def ay nit ñu matadi ñoo koy def. Mhm. am na loo xamante ne lu ñuy joyanti la am loo xamante ne dañ koy gën a defaraat lu ci baax ñu gën ci góob. am na nag parce que pare gu ma woon. Mhm. Euh, dama ci doon bëgg a rebondir far kii ci la duggee ci Pastef parce que dafa am rapport ak euh, li ma doon wax mooy. est-ce que tey jii nii wax nga procureur wax nañ commande commando spé euh, force spéciale force obscure je pense euh, commando force occulte mmh. commando est tey jii nii parce que y ñoo xam ne loolu la ñuy xalaat ñu ne est-ce que tey jii nekkul ne euh, dañuy préparer nit yi pour comme lu jëm ci wàll que parce que gis nañ fi ñu bokk ci parti adverse bi ñu bokk ci gouvernement bi di réclamer ne dañoo war a dissoudre dañoo war a tas parti Pastef est-ce que tey jii nii yooyu yëpp ñuy génne ngir yàq image wala diaboliser wala yi ñuy wax supposons est-ce que doonul pour préparer Sénégalais pour ëllëg kat bu jëlee jéem a tas Pastef mu doon lu réussir nit ñi ne ah. souvent dañ leen étiqueté ne day am ay violence dañ leen étiqueté ne ay commando spécial ak ñoom seen est-ce que du une manière la pour préparer nit yi pour di dissoudre Pastef mais kon préparation bi doxul parce que tey tey la nit ñi gën a bëgg Pastef di ko cotiser ay centaines de million di ko jox parce que di toppatoo seen président di ko encadrer di joxe sax seen bakkan pour dara bañ koo jot kon bu doon dañu doon préparer Sénégalais yi pour yàq seen xel mhm. tey la seen xelu Sénégalais yi gën a defaru bu produire effet contraire bi. d'accord beneen bi nag mën nañu xëy dissoudre ko même bu dee xelu nit ñi mais ñoom. kuy dissoudre Pastef kuy dissoudre Pastef kuy dissoudre Pastef ki ko war a jur ki war a jur kooku juddoo ko. yóbbu nañu ci général de Gaulle avancé Pastef on touche du bois euh, ñu xool sa biir wax yaa ngi koy fàttali. ni que depuis deux mille dix neuf nañu seetlu un peu cette diabolisation de Ousmane Sonko et du parti PASTEF ñu gis mars deux mille vingt mars février deux mille vingt mu am fi ay émeutes gannaaw bi ñu ko arrêté euh, le 8 mars 2021 président de la République génn daal di ne sénégalais je vous ai compris que ñi ci gën ñi ci bëri ñi génnoon di manifester dañu jàpp ni que c'était les effets du Covid les effets du couvre-feu ngeen amoon ci yéen si seeni i rang des blessés et des morts pourquoi ma ne yéen si seen rang euh, parce que dañu jàpp ni que en république bu manifestation amee c'est-à-dire s'il y sax dans des circonstances il revient au pouvoir public mooy ministère de l'intérieur